alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki tab ñu déglu rajo xam sa diine ci WP 8970 AM ñu ngi leen di nuyu nuyu islam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen dal jàmm kon ci émission bi di sax di fësal suñu cant ak suñu ngërëm ci ànd bu rafet bi nga xamante ne nii da ngeen ko yàgg ànd ak rajo xam sa diine ci émission bi ñuy amal jamono ju ne ci àjjuma ci waxtu bi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci loolu di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu émission bi fekk ci jàmm yàlla nañu yàlla jàmmal yàlla nañu yàlla wërsëgal bëgg alquran ak sunna yàlla nañu yàlla xiir ci diineen ji yàlla nañu yàlla musal ci lépp loo xamante ni dañ ko sof ci diine te bokk ci ñu ngi fàttali du ñu dañ di fàtte jamono ji ba bala ñuy dugg ci émission bi ci yitte ju réy ji nga xamante ni moom moo nekk suñu yitte ci lii nga xamante ni mooy xam sa diine rajo bi particulièrement ak yoon yi tànk yi nga xamante ni ci la ñuy doxe la ñu woo seen bopp di ci woo tamit képp koo xamante ne ni yaa ngi déglu émission bi loolu mooy lan mooy bokki tat yi nañ bokk yëpp nii diine islam dañ koy wax xam-xam a tax diine islam dañ ko war a xam laataa lu ne yàlla subhaanahu wa taala mi ngi wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jottali nit ñi mbir mu ama am solo yàlla mu ngi wax ci suuratu yuusuf aoudu billahi min ashaytan rajim qul ad'u ila allahi ala basira ana wa man itabaani wa subhanallah wa ma ana min almushrikin yàlla subhanahu wa taala wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko qul waxal yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal nit ñi ni leen haadihi sabili lii de man mooy sama yoon ad'u ila allahi damay woo nit ñi ci lan laa leen woo dama leen di jëfe ci borom bi subhanahu wa taala ila allah wante nan laa koy defee ala basira dama koy teg ci xam-xam bu leer nañ boo xamante ni dafa tegu ci yàlla nee na yonante bi nee na kon li ngeen li ngeen di seetlu fii mooy yàlla subhaanahu wa taala dafa wax yonante bi ni ko ala basira teg ko ci xaw xam-xam loolu moo tax lu ñu dem di si suñu bopp leen fàttali ni li nga xamante ni mooy diine islam basira mooy xam-xam bu leer nañ boo xamante ni ni ñuy tegu ci yàlla nee na yonante bi nee man lii moo nekk suñu yitte yoo xam dañ koy fàttali suñu bopp di leen fàttali képp koo xam ne dafa sax ci émission bi ni nañ ci gën a góorgóorlu te ñaan yàlla mu saxal la bala ñuy avancer ñu ngi leen fàttali rajo bi tamit nan ngeen koy déglu wala demee si website te moom www dat xam sa dina dat tam mën ngeen ñu si déglu man ngeen ñu déglu tamit boo la nekkee fii ci United States États-Unis mën ngeen déglu ci 213 493 0134 213 493 0134 bu dee fële ca England Angleterre maanaam wala Europe képp koo xam mën nga ko woote euh, gratuitement mën nga déglu rajo bi ci 20 203 five one nine zero four seven zero two zero three five one nine zero four seven zero loolu tamit képp koo xamante Angleterre da nga ca woote li nga mën a déglu rajo bi ci li nga xamante moom mooy téléphone. ginnaaw loolu tamit émission tay bii émission la boo xamante ne nii ñu ngi daal ki nga xam ne mooy Fadlatu Cheikh docteur Ahmed Lo. mu ñëwee ñun ci ñaari xutba yoo xamante ni nii tamit dañoo am solo lool ci li nga xamante ni mooy diineen islam. kon li ñuy def mooy day ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu ubbi ñu suñu xol baaxee ñu ñu déglu ñaari xutba yi ngir mën cee jariñ kon fadlatu cheikh bismillah alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة المؤمنون sunu borom tabaaraka wa taala wax na ci alquraanul karim mu ne inna alladina yuxibuuna an tashia alfaaxishatu fi alladina aamanu lahum adaabun alimun fi dunya wal axira wallahu yaclamu wa antum la taclamuun sunu borom nee na ñi nga xam ne lii seen itte mooy tasaare ñaaw teefi jullit yi tasaare ñaaw teefi jullit yi ñooñu am nañ mbugal fii ci àdduna waaye am nañ mbugal mu leen di xaar ëllëg ca àllaaxira mbugal mi leen di xaar fii ci àdduna mooy ku ko def ni ko al imaam ibnu jarir at-tabari di waxe moo di dafa am mbugal muñ war a teg ci kawam muy benn sanction boo xam ne mooy bu dee kuñ war a dóor dañ ko war a dóor juróom-ñett fukki yar su fekkee ne lu aju ci lool la waaye am na mbugal mu koy xaar àllaaxira moo xam ne mooy mi gën a tàng te mooy mbugalum naaru jahannama wal iyaasu billah su fekkee ne dafa nuur ci loolu bañ koo tuub ba faatu abdullah ibn omar ibn alxataab mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ciy wax ne jullit jullit mooy mbokkam al muslim axul muslim laa yazlimuhu nee na du ko tooñ wala yuslimuhu nee na du ko jox itam ab noonam du ñëw mu jàppal ko ab noonam jox ko ko mu ne képp koo xam ne yaa ngi xëy taxaw ci sa aajo yu mbokkum jullit pour dimbali ko nee yàlla dana taxaw ci sa aajo yow dimbali la nee képp koo xam ne sa mbokkum jullit nekk na ci njàqare wala aw tiis nga taxawu ko ba njàqare loole wala tiis woowee wuññiku maanaam mu dañ nee na yàlla dana la wuññil wenn tiis ca tiis ya nga xam ne ñooy am yowmal qiyaama mu teg ca ne képp koo xam ne suturaal na ab jullit nee na yàlla dana ko suturaal yowmal xiyaama kon loolu mooy li tax ñu indi xadis bi ca beneen riwaaya ba dafa ne lépp ci jullit dafa araam ci lépp ci jullit maanaam araam na ci moom deretam mu di ko tuur araam na ci moom alalam mu di ko lekk araamal na ci moom ab deram muy wax ci moom wax ju ñaaw wala muy wuññi suturaam ci beneen xadis Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa machara man aslama bi lisaanihi walam yuxdi l imaanu ila qalbi e yéen ñi nga xam ne yéen la seen lislaam nekk ci seenu làmmiñ te àggul ci seeni xol yéen ñi nga xam ne seenu lislaam ci seenu làmmiñ la yem te àggul ci seeni xol yéen laay waxal bu leen lor jullit yi kon kooku naa féq la bu leen lor jullit yi bu leen topp seeni awra ak seeni ñaawteef ndax kat képp koo xam ne day topp awra jullit ngir di ko génne di ko feeñal nee kooku yàlla dana topp ay awraam ba toroxal ko donte ca biir këram sax la koy toroxale ñu gis foofa toroxte ja kon kooku lu garaaw la ndax doomu aadama ormaam dafa màgg moo tax ibnu omar dafa xool benn bis kaaba di ko xool ba mu yàgg mu ne ko cëy maa azama ki amut dara yow day ku màgg màgg màgg nga wa maa azama xormata ki sa orma fa yàlla day lu màgg la waaye day wal muminu azamu xormatan inda allahi mink waaye jullit ki gëm yàlla moo la gën a màgg orma fa yàlla yow kaaba gi jullit yi texte yi nga xam ne moo jàll muy alquran ak sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam xadiisam am na ay tomb yu bari a i taxaw seetlu yoo xam ne mënees na ko ci jële ba ci jëkk moo di ne chariatul islaam dafa santaane santaane gu war obligatoire mais dafa jaaduñu suturaal ab jullit dafa war moo tax boo demee ci téere fiq yi moo xam ci téere fiqu Malik la wala ci téere fiqu Abu Xanifa wala Shafii wala Ahmad da ngay gis ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne suturaal ab jullit lu war la am ay détails yu bari yoo xam ne wax nañ ko ci moo tax dañuy wax ne boo toogee ci détail gis fa loo xam ne ñaaw téef la boo xam ne lii xam nañ ne baaxul waaye xëy na amuñu teg su sharia bu koy tere nee na lu mel noonu dafay war ci yow nga nëbb ko waaye nag su fekkee dafa doon loo xam ne dafa juuyoo ak sharia su fekkee àq yàlla la waaye àqi doomu aadama ajuwu ca su boobaa it ñu ne nëbb ko moo gën su fekkee ne àtteb sharia nag da caa aju boo xam ne làmboona àq yàlla ak àqi doomu aadama nee nañ su boobaa yow dang dañ laa tànn loo bu la neexee nga yëgal ko ku ko mën a faj bu la neexee yi nga ne ci yàlla te doo ca am bàkkaar loolu nag dàqonte wut ak digle digle lu baax ak tere lu bon moo tax ñu ci ñëw ci kanam ñee fa ñuy waxe mooy ndax lii day war ci yow ki nga gis muy def loolu nga yëkkati mbiram yóbbu ko ca kay atte wala nga yóbbu ko ca kay yilif nit ñi ngir mu man teg ci kaw daraam teg ci kawam dara mën koo sanctionné wala mu mën koo toroxal foofa lay waxe ñaareelu taxaw seetlu bi moo di ne nit ki nga xam ne dafa def bàkkaar nit ki def bàkkaar day war ci moom mu suturaal boppam te bañ koy waxtaane def lu boon doy na sëkk waaye def ko ba noppi wëlbatiku di ko wax nag kooka musiba la benn waaye dafa mas a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dafa njaaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nañ ma indil ab yar am yar biñ ko war a dóore kon kooka sañewul woon maanaam doonul koo xam ne dañ koo war a rey tëkkagul woon kooka dóora ca war waaye rey waragu ca moo tax mu ne nañ ma indilum yar nee na ñu dem indi ab yar boo xam ne yar bu damm la daal bu ñàkk solo bi mu ko xoolee mu ne leen bu ëpp bii laa wax yar bu ëpp bii laa wax ñu dem fàq ab banqaas carub garab boo xam ne daanakaw yàq la ndax ma nga ànd ak meññet maag lépp biñ ko indee mu xool ko ne leen bu yées bii laa wax ndax booba it aw yàq lay daal di doon dootu doon ak yar ñu dem indi beneen boo xam ne ci diggante bi la nekk bi loola amee mu daal di woo waajoo ji mu ñëw ñu dóor ko yar ya nga xam ne moom la yeyoo ñu dóor ko ko bi mu noppee li wone ne suturaal sa bopp dafa doon lu war yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ee yéen nit ñi jot na day yi yàlla tere ngeen bàyyi ko fa jot na yi yàlla tere ngeen bàyyi ko fa waaye nag ku juum ba tàbbi ci yu bon yii nee na na suturloo suturaas yàlla ndax kat ku suturloo suturaas yàlla soo si dem tuubi waaye ñëw fi man wax ma ne def naa nangam nee na li yàlla àtte rek laay teg ci sa kaw maanaam jéggal du fa foofa kon foofu santaane wut ne ki def lu bon li na nga daal di ñëw yëgle ko ñu def la nangam boo tuubee sa digganteeg sa borom nee koo ka baax na kon jot na ngeen bàyyi lépp lu yàlla tere ngeen bàyyi ko foofa waaye nag ku def loola te yàlla suturaal ko nee na na suturloo suturas yàlla soos yi sa dem tuub ndax kat man yubdi lana safxata ku dikk fi nun ne sama bilan lii la nangam ak nangam laa def nee na nuqim alayhi kitab allah li ñuy def rek mooy daal di teg li alquran santaane ci kawam kon suturaal sa bopp taxawaay ñetteel bi moo di ci jamono lañ nekk joo xam ne daa siiw lool nit ñi sawar lool ci seeni làmmiñ ci wax ci nit yàq derub nit yàq deru askan yàq deru mbooloo xaste jël ay tuuma sànni ko ci kawi doomu aadama yoo xam ne set nañ ko wecc dem ba deri deri jullit yi dafa mel ne sax loo xam ne nit ñi dañuy bànneexoo di ci wax ngir di yàq ay der te loolu day wuute naag jikkoy koo xam ne ku gëm yàlla la di jaamu yàlla duñ fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax moo di ku topp awra yi mbokkum jullitam di ko feeñal yàlla dana topp sa awra ba dana ko feeñal ci kanam mbooloo ni gis ko kon loolu lu mat bàyyi xel la ñeenteel ba moo di la war ci ki gis mbokkum jullitam muy def bàkkaar bu mag wala mu jeng jóge ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu sunna wala yoonu siraatul mustaqim kooku li jaadu ci moom mooy mu laaye ko biir waxuñu ne boo ko gisee bul yëkkati bul ko tasaare bul xotti ormaam ok bul xotti ormaam waaye nag bul ca noppi bul ko bàyyi wéetal ak sa mbokkum jullit ci sutura sa diggante ak moom jàppal ci loxoom soree lool ak fa nit ña nekk fexe ba sa digganteeg moom la muy yëg mooy kii ku ko yërëm la ku ko bëggal lu baax la ubbil ko buntub ragal yàlla won ko ne ko dafa war ragal yàlla ba bàyyi lii waaye ubbil ko it buntub yaakaar ndax mu xam ne lii su ci tuubee yàlla jéggal ko ndax loolu mooy mën a tax mu mën a xoolaat boppam yëg ni moom mii def na njuumte mu mën a delluwaat tuub ndax kat nit ki nga xam ne dafa gis mbokkum jullitam laaye ko biir kooko mën na koo dimbali ci mu tuub tuub gu sell su fekkee ne laaye na ko biir ci anam goo xam ne anam gu àndut ak gu ànd ak sutura la waaye saa boo xamee ne xotti na ormaam ba ñëpp àndandoo yëg ko benn yoon yooyu ci lii tax nit ci lu ci la bokk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne su fekkee ne yaa ngi topp awra yi nit ñi di ko feeñal day nee na yaa nga leen di yàq soo dee topp seeni awra di ko feeñal di ko tasaare yaa nga leen di yàq ndax loola day dox seen digganteeg tuub juróom-benneelu taxawaay bi moo di ne di topp awra yi nit wala ay njuumteem su nit ki demee ba xuus ci loolu ba xóot ca day mujj sax sikki sàkk la koy indi ci léppam xelam duutu dal ci kenn comme gis ku nekk jàpp na ne yaa ngi ci njooxum bu dee jigéen la wóolootul jëkkëram jàpp na ne fu mu toll fu ne mu ngi ci ay njaaxum fu ay jikkoom toll bu génnee fu jëm bu tegee lu di xabaaram bu tegee ab téléphone am mu xool lan mooy numéro yi nga xam ne moo ca nekk lan mooy numéro yi koy woo lan mooy numéro yi muy woo fexe ba am na lu nekkoon ci xelam ci sikki sàkka mu wutal ko am lënt moo xam ne dana am kum jàpp ba ni kii daal jubatul nam meloon njolatuni bu dee góor ga it noonu lay mel ci digganteem ak soxnaam ki nga xam ne sikki sàkka rëbb ay lënt dem na ci ab xolam ba àgg foofu te nit ki xamee ne soxla woon a gëstu ay bi doom aadama yi seytaane dana ko daan ñaari jël saa boo xamee ne dem na ba amatul itte lu dul seetlu ban ayib moo nekk ci diw ak diw ak diw looloy liggéeyam seytaane daan na ko ñaari jël am na ñaari bunt yoo xam ne seytaane jaare na ko ba gañe ko benn bi mooy dana ko fàtteloo ayibi boppam comme que ci ayibi nit ñi lay xëy di ci compte moom jàpp na ne moom mucc na ci ayib su ko defee ayib ya muy def bàyyiwu ca xel loola mooy tax du ko tuub ndax ayib ji nga bàyyiwul xel doo ko tuub su ko defee seytaane kontaan na foofu ndax am na la mu bëggoon beneen bi ci des mooy mbokkoo gi waroon a dox sa digganteeg sa mbokk jullit yi xaritoo gi jàppalante gi dimbalante gi dolli konte ji doole bunt boobu yépp seytaane dana ko sakk ndax dana yàq sa diggante ak ñi nga xam ne ñooñu ngay gëstu seeni awra kon daal relation yi dox diggante doomu aadama yi munta jub lu dul su fekkee ne di gummooyu yenn yi day am léeg-léeg dara xew sax nga xam ne kii lii mu def dafa juum dafa def nangam bu dee ci sa àq la nga dummooyu ko sax wane ne yow loolu yëgoo ko sax faf moo tax waxkat ba day wax ne laysa alxabiyu bi sayidin fi qawmihi nee na daal ki ki dese daal maanaam ki naataxuuna mooy koo xam ne xel ma dafa gàtt gàtt gàtt ba mu xaw a defee ci wàllu xel nee na kooka day dub sang moom wax dëgg yàlla dub sangu doonul ka gën ca nit ña waaye nag ki gën ci nit ñi mooy koo xam ne day def def lu loolu te fekk melut noonu soo ko di dalay wan ne lu bari yëgu ko soo ko dee nettali dara sax mu jàpp ne loolu tey la ko mos a dégg fekk yooyu weesu na ko bu yàgg moom nee na koo kii moo di sang nag ci biir nit ña kon di dummóoyu dara ak di wane ne yëguwoo ko ak di wane ne sa yoon nekku ca loolu ci melokaani nit ñu baax ñu la léeg-léeg da koy laaj juróom-benn taxawaay bi moo di mbokk jullit yi fan yi dañoo jot ay téléphones yu bare bare bari yoo xam ne dafa doy laaj ci benn masala boo xam ne nit a nit a ci génne benn fatwa boo xam ne waa ji génne fatwa boobu yi boroomu programme la ci benn télévision programme boo xam ne turu diine la yor donte jëmm ja nga xam ne moo def fatwa ba su xamoon boppam du joxe fatwa ci wàllu diine ndax bu dee ci wàllu xam-xam sàkkukati xam-xam ya xamuñu ko ci sàkku xam-xam moom boobu benn la beneen bi ci des jikko woowul jikkoy boroomi xam-xam ca lañ xam ci moom kon jëmm joojee ndax képp koo xam yaa ngi taxaw ci kanam ay nit di fooyee diine bañ xam ne yaa ngi koy fooyee kooka yoru jikkoy boroomi xam-xam masala biñ ko laaj ñu ubbee ca dafa wax ne bokk na ci sarti tuub na ci sarti moo di njaalookat bi nga xam ne dafa njaaloo ak jigéen ngir ñi nangul ko tuub gi war naa dem ca kilifa jigéen joojee yëgal ko li xew seen diggante su fekkee jëkkëram la mu wax ko ko su fekkee baayam la mu wax ko ko su fekkee fereeram la mu wax ko ko su ko defee ñu door a ma nangu ak tuubam su ko deful duñ nangu ak tuubam mu ne loolu waxi ku jàngul diine la nee ni kese kese kese la la yoo xam ne daganul sax di ko toxal ay nit di ko dégg waxuma la di ko jaarale ci ab jumtuwaay boo xam ne doomi aadama yu bari dañ koy déglu nit ki njaaloo tàbbi ci bàkkaar bu mag boobee doy na ko mu suturaal boppam tuub waaye sañu koo wax kenn sax keneen doomu aadama waxumaa nag ñëw ci ki nga xam ne mooy bokki ñooñu jëkkëram ñu mel noonu di ko ko wax ndax loolu la ca mën a tegu ci ay musiba ak fitna sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam te loolu dafay jooyoo ak li nga xam ne shariatul islaam moom la jàngale maais ibnu malik radiallahu taala anhu jëmm la joo xam ne dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day tooñ naa sama bopp ndax jëf jooju yi ñuy wax njaaloo moom la def booba ne ko yow yonentu yàlla bi laabal ma yonent bi sallallahu alayhi du muuyu ko mu dem jël si wet bi ca des waxaat ko mu du muuyu waat ko bi mu ko waxee ñett ci yoon nag mu woo ay bokkam ne ndax moom nii ku amum xel la maanaam ndax dofut ñu ne ko ah noonu day wax dëgg nin ko xame day ci suñ boroomi xel lan ko boole maanaam doful yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nañ ko yóbbu def ca la yàlla santaane yonente bi sallallahu alayhi wa xam na ne ki ànd akom xelam ñëw di wax loolu ne ko laabal ma xam na ne moo def loolu xam gum xam ne moo def loolu ndax moo ko saxalal boppam moo tax mu digle ñu teg ci moom acte bi yàlla santaane waaye mënoon na ko laaj jan jigéen nga ko seqal ndax ginnaaw njaaloo la faaw jigéen la jaaloo la waaye abadan laaju ko ko amul benn riwaay ñu mujjul boo xam ne dañ lay wax ne maais laaj nañ ko ndaw suñ seqaloon jaaloo ndax ñu mën a taxawal ci moom ab acte ànd ak ne kenn nattablewul ne njaaloo moom yi moom am na te jigéen la ko seqal waaye kooka ko mu kenn xamu ko taxaw lañ ci moom acte bi yàlla kon sutura saa fa nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wu ñëwu ko boo wëlbatikoo ci côté jigéen ji soxna si nga xam ne raami di la woon bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dafa njaaloo ne ko laabal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontuwu mu dem ba mu dellu si waat ci yàlla ne ko dafa ëmb sax far ci njaaloo boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne demal ba doom ji juddu mu dem ba doom ji juddu toog juróom-ñeenti weer wala lu ko jege doom ji juddu mu ñëw indi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga nàmpal ko mu dem toogaat ñaari at wala lu ko jege nàmpal doom ji ngabbaat ko delsi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mi ngi nii xale bi yor morso mburóom di lekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale boobu jox ko kenn ci jullit yi ne ko yor ko yar ko jàngal ko daal di digle ndaw soose ñi daal di koy yóbbu dem taxawal atteb yàlla ci moom mënoon na ne ko waa ji nga xam ne moo la ëmbal mooy kan waaye abadan dikkul ci benn riwaay ci xadis bi boo xam ne soxna soosu laaj nañ ko ki ko ëmbal mooy kan ci kaw suuf te xam nañ ni jigéen joo xam ne ëmb na ci lu dul ak sëy xam nañ ne am na ku ko ëmbal te bu ko laajoon mën na koo xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mënoon na koo xam ci laaj bu doon lu mënta ñàkk ci masale diine yàlla mën naa yebal jibril mu ñëw nam ko daan yebale di ko andil ay xabaar mu ne ko kooki ëmbkat diw saa nga ma ko ëmbal waaye yooyu yépp dara amu ci mu wane ne yàlla ci boppam moo ko suturaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suturaal ko te laajut loo xam ne eh, wari su ko laaj kon kuy taxaw di wax ne nit ci def njaaloo daa war a dem ci ay bokkam de ko def na koog moom kooko jàngul diine bokk na ci musiba yi nga xam ne day am jamono yu nekk mooy lu bari ci nit ñi dañuy dem ba ne ñii doom yu judduwul ci yoon la nga xam ne bët yooyu lañ leen di xoole ba ñoom sax dañuy dem ba nangul ko seen bopp am na bis am ay nit yu ñëw yàgg na tuuti seen waajur génn àdduna ñuy laaj masala boo xam ne dañ ne daa am koo xam ne bokku ci ndax seen baay amu ko woon ci yoon te dañuy bëgg a miraas mu leen ku leen wax ne seen baay amu ko woon ci yoon ñu ne daal loolu siiw na ba moom ci boppam gëm na ko waa koñ beeg nit ñi ñëpp xam nañu ma ne ko lii ngeen wax fii ngeen toog yéen su fekkoon ne sharia mooy attete yéen dañ leen di dóor ndax dàq doom ci lislaam yii rek moo ko mën a andi waa ji tuumaal na jabaram àndandoor dem nañ ca imaam ba waatoo waatoo kii waat ni juruma doom ji kee waat ne ko waxoo dëgg su ñoppee dañuy tàqale seen diggante bu doom ji juddoo kenn du ko askane baayam beneen ba mooy ka doon def yëf yi ci boppam kenn tegu ko benn pression kenn sonalu ko mu waxal boppam ne doom jii kat jigéen ji nga xam ne boo ko jur moom ci boppam mu waxal boppam ne doom jii diw sàngam juru ko wala juruma ko ci yoon waaye su juree doomam ne cell waxul dara kenn ñëwu ko fekk naan ko juró juróo sa doom ji ci yoon beneen bunt ñetteel bi nga xam ne ci lañ mën a dàqew askan moo di ñeenti seede ñëw yoo xam ne dañoo gis njaaloo ba muy am ñu xam ne ñu bokk xam ne njaaloo am na ñu seede loolu ñett yi ma tudd su fekkee ne benn amu ci ku dàq nit ci baayam lislaam bu fi nekkoon da lay dóor moo tax sunu borom tabaraka wa taala dafa ne walladina yarmuuna almuxsanaat ñi nga xam ne ñooy tuumaal jigéen ñu baax ñu laab ña summa lam yatu bi arbaati shuhadaa ba noppi indiwu ñeent ñoo xam ne ñoo ko témoigné seede ko nee na faj li doohum samaaniina jalda juróom-ñett fukki yar quatre ci ay yar moom lañ leen war a dóor su fekkee mbooloo lañ kenn ku ne quatre-vingts bu dee kenn itam quatre-vingts lañ koy dóor yoo xam ne euh, ay duma lay doon yoo xam ne torox toroxte lay àndal ndax dañuy woo nit ñi ñu fekke ko ñu xam ne kii moo wax kii lu mu ko war ko wax lislaam teg ci moom lii ñu dóor ko ca kanam nit ñi ñëpp fekke ko ba bu ca jógee ñi xam ne keekat moo defoon loola bañ teg mu teg ca ne wala taqbalu lahum shahaadatan abada nee na li feegu ñoo ngi dund seen shahaada maanaam témoignage ci lislaam bu leen leen ko nangulati mukk suñ doon seede ñiy tànn ay nit ñu maandu ñooñu kenn du leen ci boole am na ci borom xam-xam ñoo xam ne nee nañ jëm buñ demoon ba tuub sax nga xam ne génn nañ ca loola waxatuñ kenn wax ju ñaawit bu ñuy seede bu fekkee gis nañ ñeneen ñu dul ñoom ñoo ñooñu dañ leen di teg fële te dem jëli leneen loolu mooy abadan ji suñu borom tabaraka wa taala wax moo tax mu teg ci ne wa ulaika humul fasiquun nga xam ne ñetti mbir la boole nee na ñooñu ñooy kàccoor yi benn bi mooy nañ leen dóor ñu leen nangul seede ba noppi tampe leen ne ñooñu ñooy faasiqoon yi ku leen seen xam ne kàccoor yaa nga ne nit ñi baaxul ñaa nga doon kon mu ngoog mbokk jullit yi ñu xam ne maandute dafa bokk ci valeur yi nga xam ne mooy tabax tabaxal doomu aadama ak ndoomu aadamaam mooy tax mu mën a nekk nit bokk ci fondamentaux yi nga xam ne lislaam da ko indi ngir bëgg a tabax dundu nit fii ci kaw suuf ñu kenn ku nekk say àq sa àqi njaboot sa àqi société moo xam lu aju ci wàllu social la wala lu aju ci politique la wala xeet wu mën a doon ku nekk am na àq ju la yàlla jox yoo xam ne ci wàllu maandute loola yaa ko moom doy na rek ñu xam ne maandute lu yàlla màggal la ñu xam ne yonent yi ak téere yi yàlla dafa yónni yonent yi wàcce téere yi ngir ñu taxawal ak maandute ci kaw suuf moo tax sunu borom tabaraka wa taala mu ne laqad arsalna rusulana yónni naa samay yonent bil bayinaat man ma yónni leen jox leen ay lay yu wér wàcce ci ñoom ay aay yu dëgër wa anzalna maahum alkitaab nu wàcce ay téere ànd ak ñoom wal misaan ak balance nattukaay lu tax mu ne li yaquuma annaasu bil qisti ngir nit ñi mën a maandu kon nee na yónni naa sama yonent boole leen ak ay téere ñu indaale ko jële ko fi man ngir leen rek ngir na balance nattukaay am bu wóor boo xam ne mooy tax doom aadama yi mën a maandu maandu te nag ci lislaam dafa doon loo xam ne lu nosewu la lu itteel suñu borom tabaraka wa la itteel ab yonentam moo tax mu teg ko tegiin woo xam ne tëral ko tëraliin woo xam ne mooy tax ka néew doole amul benn pexe amul daraja amul alal amul luñ koy ragale loola mooy tax kookee ñu mën koo jox ak xam ki nga xam ne dañ koo tooñ ci kaw doole ak bari man-man kooku ñu jox ko ak xam kon maandute mooy boroom àq ji na jot ak xam te na mu gën a gaawe ci yoon ya gën a yomb noonu la ko lislaam tere loolu nag ci jullit dafa bokkut ci yi nga xam ne naafila la waaye ci pas-pasu jullit ci la bokk mu gëm ne moom dafa war a maandu ci boppam maandu ci digganteem ak askanam digganteem ak njabootam digganteem ak société bi digganteem ak adduna bi sax moo tax borom bi tabaraka wa taala daf noo digal nu maandu doonte kii nga xam ne moom la ñuy àtte ci mbiram sax moo xam dañuy àtte ci moom ci anamu àtte bu mën a doon doonte suñ digganteeg moom sax ak noonoo daf fee dox doonte daf noo bañ nu bañ ko sax bu dëgg jotee ci mbiram nan ko wax nan naa ci mbiram moo tax suñu borom tabaraka wa taala mu ne yaa ayuha alladina amanu kuunu qawaamina taxaw ci kaw maandu te shuhadaa lillah lépp lu ngeen di seede yàlla tax walaw ala anfusikum donte li ngay seede boo nappee nguur mi ci sa kaw lay dal donte yow sa bopp la ñuy sanctionné li ngay seede na ko seede ndax li yàlla tax awil walidayni wal aqrabin li ngay seede bu sottee sanction ba ci sa kaw ay waajur lay dal wala ci sa kaw ay mbokk yu la jóge ak moo xam anamu jege googee gum mën a doon sunu borom tabaraka wa taala mu waxaat ko yaa ayuha alladina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bil qist nee na na ngeen taxaw ngir yàlla te maandu wala yajrimannakum shanaanu qawmin ala alla taadilu nee na bañ aw nit bu mu tax mukk ngeen ñàkk maandu waaye iqdilu nee na maandu leen huwa aqrabu li taqwa loolu moo ànd ak ragal yàlla maandu leen ndax loolu moo ragal kon mënees su ragal yàlla te maanduwu waaye ku maandu it day wane ne kooka ragal yàlla mi ngi ci xolam borom bi tabaaraka wa taala daf wax li ngay wax nga xam ne wax jii ci kaw maandu te la fekk moo tax mu ne wa ngeen wax na ngeen maandu li ngay wax na nekk maandu kese luy tooñ bi ci nekk lu koy lor bi nekk lu koy gaañ lu ca nekk te fekk teguwul ci kaw dëgg te fekk teguwul ci kaw dëgg moo tax wa ida qultum maandu leen walaw kaana daa qurbaa doonte sax ki ngay wax ci moom dafa doon ku la jege bu mu tax mukk nga nës nësal wala nga waxal ko loo xam ne lu la wala lu baax ci moom la fekk keneen a nga see loolu koo xam ne ku la sori la borom bi na maandu ci atte moo xam da ngay àtte diggante ñaari nit dañ laa wóolu ñëw ne laa man de sama digganteeg sama soxna nanga ma fi dox wala sama digganteeg ma doon liggéeyandoon wala sama digganteeg sama xarit ba nanga ma fi dox ñu ne la comme que yaa ma ca tane attenu borom bi tabaraka wa taala dafa digal kay atte mu maandu wala da ngay atte ci tribunaux yi nga xam ne moom la nit ñi teg di ca attewu soo ci atte na nga maandu bépp atte buy jóge ci yow na doon boo xam ne seet dëgg rek la moo ko lal moo tax borom bi tabaraka wa taala ne inna allaha yamurukum seen borom tabaraka wa taala muy yàlla mi ngi leen di digal an tuaddu al amanati ila ahliha lépp loo xam ne wóolu nañ leen ca ngeen joxe ko nam ware te bañ caa wor mu teg ca ne wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl su ngeen dee atte diggante aw nit wala diggante nit ak nit na ngeen ko def ci kaw ak maandu te borom bi tabaraka wa taala leen a maandu te ba ci sax ki nga xam ne day defar ay diggante ba ci kii defar ay diggante ak diggante ñagas na nga ñëw di ko defar am na ñoo xam ne seenu defar dañ koy teg ci kaw parparloo yàlla nee na déedéet du noonu moo tax mu ne su fekkee ne dafa am kuréel yoo xam ne fitna daa dox seen diggante ba ñaawoo dox ba ba àgg ci xeex ak yu mel noonu nee na li ngeen dox seen diggante atte leen su benn ba jéggee dayoo nag lànk nee na boobee fetteerlu na ngeen ko yar su fekkee def ngeen ko nag bañ nangoo dellu ñoom ñaar ñëpp dellu gannaaw ba atte des ca wala yéwénal seen diggante nee na fa aslixu baynahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin suñ demee ba del si nag ba yéwénal diggante bi moo ci def ngay réparé su boobaa nee na na ngeen jëfandikoo maandu bul ne mukk woon kii moom jekk ci dane woon jàmm la kon ngay àtte fexe wax loo xam ne day baax ca kenn ka te baax ca waaye maandu mooy feeñ bu boobaa ginnaaw ñoom ñëpp nangu nañoo ñëw ci solu mu yéwénoo su boobaa yéwénal diggante bi ci ak maandu bu ne woon bu fekkee gëstu nga ba gis na dañ koo tooñ sax na nga ko woon ne ko yow yaa tooñ su fekkee kenn ku ne daa am tuuti ci dëgg la ca des doon caaxaan kenn ku ne nga delloon ko dëggam nga ne ko fii kat yow yaa fi nekk ci dëgg kële fee yaa fa nekk ci caaxaan waaye loolu lépp da ngeen koy jéem a effacé jéem a defar diggu diggu ba bañ àndaat nekk benn diggante ba bañ àndaat nekk benn loolu mooy ak màndute kon màndute ci lislaam a noonu la war a tëddee ndax maandu te suñu borom tabaraka wa taala daf moo tax bépp diine boo xam ne nit a koy dund te fekk diine baa nga ci cosaanam dara soppikuwu ca faw maandu te dafay nekk na ci li la koy firndeel yorente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy yónni saxaaba yi ñuy dem xabasha ka fa nekkoon ab nasaraan la woon waaye ginnaaw dafa jàppoon ci diine ji yàlla wàcce woon kon kooku ci maandu te la nekkoon moo tax yàlla ne leen dem leen fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad buura nga foofa boo xam ne kenn du tooñ kenn fa moom li ngeen làqu ci foofa kon maandute xamul kii laa bëgg wala moo ma bëgg kii laa bañ wala kii moo ma bañ waaye maandute rek la xam xamul kii moo ma jege ci aw askan wala moo ma jege ci deret kële moo ma sori ci askan kële moo ma jege ci deret xamut loolu xamul kii boroom daraja la ci kanam dëgg ñu ne boroom daraja la nañ ko suulal dëgg gi mu wan la ñu ne kii boroom alal la déedéet xamut loolu xàmmeewul sax ab jullit ak kudul jullit naam xàmmeewul jullit ak kudul jullit ku lu mën a dox diggante ay doom aadama ba atte sës ca su boobaa dëgg rek moo fa sës waaye amut leneen lu i seet naan ndax kii jullit la wala du jullit wala kii imaam la kii du imaam kii ku ma jege ci askan la kii ku ma sori la kii ci sama kuréel la bokk kii bokkul ci sama kuréel déedéet lislaam xamut loolu li mu xam daal mooy dëgg ga fan la ñu naa ah nañ ko yóbbu foofa ku nekk ci caaxaan ak koo mën a doon ñen la ci caaxaan nekk bu dee da ngaa aajowoo yar ñu yar la bokk na ci li muy firndeel loolu moo di qissab Usaama ibn Zayd radiallahu taala anhu Usaama mooy doomi Zayd mi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa li ñu tuddee ab adoption doomoo ba muy dagan yonente bi sallallahu alayhi wa da koo doomoo woon jàppe ko ne mooy doomam ba alxuraan wàcc ne loolu daganut ndax dafa nekkoon ab jaam ci biir kër gi ñu goreel ko yonente bi sallallahu alayhi wa jàppe ko doom loola jiitu na lislaam dañ di ko tudde Zayd ibn Muhammad bi alxuraan wàccee tere loolu nag ñi tàkkantal ko ci baayam bàyyi Zayd ibnu Muhammad kooka nag ñi may ko soxna ba Usaama ibnu Zayd juddoo ca Usaama moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko bëggoon ba ñi di ko wax Usaama xibbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man soppi yonente bi lañ ko xamee woon ba tax dañu bari su ma saan jaaxal nit mu bëgg a àgg ci yonente bi xaw ko rus wala yu mel sax ci Usaama lañ koy jaare moom mu àggee ko ko benn bés jenn jigéen bi bokk ci Bani Maxzum muy ci jéeri Quraysh yi gën a tedd ci Quraysh ci la bokk ndaw soosu dafa sàcc ñu jàpp ko indil ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kii dafa sàcc mu seet ñu gis ne moom dafa sàcc askanu màkk wépp Quraysh ñu tiit ñu ne jigéen joo xam ne ci askan bi gën tedd ci askan wi la bokk ñu xam kër ndeyam xam kër baayam xam askan wi ñu nar a dëgg loxoom ñu ne dem leen ci Usaamatu bnu Zayd ñu ñëw ci Usaama mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko def intervention wane ne dafa bëggoon ñu jéggal ko doonte dañuy koy alal doonte dañuy def nangam wax a wax daal ay waxam ba àggal bi mu noppee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mer fi kanamam mer moo xam ne mu tor la ne ko ndax da ngay ci atte boo ne atte bi yàlla la yëmul ci loolu mu jóg alayhi salaatu wasalaam dem ci jàkka ji ñu woote ndax su lu mas am rek alayhi salaatu wasalaam day ñëw ci jàkka ji mu ñëw ànd ak mer yéeg ca minbar ba daal di xutba ak xutba bu gàtt bokk na ca lam fa wax mu ne innama ahlaka alladina qablakum ña ida sarafa fihim alsharifu tarakuuhu su fekkee ne boroom daraja wala boroom askan akub jëggu daa def njaaxum ci ñoom ñu bàyyi ko wa ida sarafa fihim aldaifu aqaamu alayhi alxadd ku néew doole néew kàttan néew alal néew daraja su sàccee ñu ñëw ne nañ teg ci kawam attab yàlla ba mu ne wa aymu llah mu ne waat naa ci yàlla ne law anna fatimata bint muhammad su fekkoon ne fatima sama doom jii man yi ci kër gi saraxat su fekkoon ne moo sàcc la qataxtu yadaha war ma dagg loxoom mu jeex tàkk ndax bu dee ab jubbu la ñuy wax wala tiraanga doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xadija bint xuwaylid din foofa la tiraanga akub jubbu foofa la mën a yem mu yëgal leen ne bu sàccoon ma dagg loxoom kon loolu mooy maandatu ci lislaam te loolu waxu ko waxi kese waaye jëf la su ko defoon jëf lay àndal mbokki jullit yi lislaam noonu muy digalee maandu noonu lay teree tooñ ndax tooñ mooy safaan ba lislaam xeex na ko bépp xeetu xeexiin woo xam ne mën na ko nit ki dañ koy tere mu tooñ boppam dañ koy tere mu tooñ boroomam di ko tere mu tooñ ay moroomam loolu lépp dafa xaram rawatina nag tooñ boo xam ne daa jóge ci boroom doole ñëw ci ku ñëw doole wala mu jóge ci boroom alal ñëw ci ku ñàkk saa boo xamee ne ki ñu tooñ ku néew doole la ki ñu tooñ lu mu gën a néew doole rek tooñ gi day ëpp bàkkaar ki ñu tooñ lu mu gën a néew doole ki ko tooñ bàkkaaram day gën a bari sunu borom tabaraka wa taala mi ngi koy wax ci xadis qudsi mu ne yaa ibaadi mu ne yéen sama jaam ñi inni xaramtu zulma ala nafsi nee na tooñ dama koo xaraamal ci sama bopp tooñ dama ko xaraamal ci sama bopp wa ma rabbuka bi zallaamin lil abid sunu borom du tooñ wa jaaltuhu baynakum muharrama nee na xaraamal naa ko itam ci seen diggante fala tazaalamu nee na kon bu leen tooñante ndax tooñ ay lëndam lay andi ëllëg kon lim saxe ci xadis xadis Muaas ibnu Jabal bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa yónnee Yaman digal ko mu woot nit ñi ci lislaam wax ko na muy wootee ne ko suñ duggee ci lislaam nga leen digal ñu julli digal leen ñu woor te seeni alal nga jël te asaka te ñu ñàkk nga jël ko ci delloo ko ci ña am nga jële ko ci ñoom delloo ko ci ñu ñàkk ne ko nag wattandiku la tànn la gën a baax ci seeni alal nag man bëgg tànn la digg doomu ba àggal mu dénk ko mu ne ko wattandikul ñaanu koo xam ne da nga koo tooñ ci tooñ jóge ci sa kaw tab bi ci kawam kooku wattandikul ak ñaanam ndax su ñaanee nee la digganteem ak boroomam amul kiiraay bu ñaanee rek bal ba takk na moo tax mu waxaat ci beneen xadiis mais ñett ngi ñoo xam ne seenu ñaan yàlla du ko delloo maanaam luñ ñaan yàlla da koy nangu ko ci jëkk nee a assaaimu xata yuftir ki nga xam ne dafa woor ba ba muy dog ki woor ba ba muy dog koor gi ñëw noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu àggaleen ci jàmm eh, mu woor ko ak jàmm mu nangul ko waaye ñu xam ne ki woor waxtu wi muy bëgg a mooy waxtu ñaan wi dëgg la boo wala boo ba noppi dog li ngay def kooku zikr la dafa tudd yàlla la sant nga di ko tudd yàlla foofa comme ni ngay jàppee ba noppi tudd yàlla comme ni ngay defee geneen jaamu yàlla baaga nee na boo defee li baaga li ngay def waaye ñaan ko dëgg nag lu jiitu ngay dog la kon rafet na ci nit ki bu fekkee mi ngi xëyoon di liggéey amul woon ak jot mi ngi doon yëngu di def dara ba ay waxtu yu néew def ci dog nag mu toog benn place nag jublu xibla jàpp ba sell xool la ëpp solo ci loo xam ne dana ko jariñ di ko jariñ njabootam di ko jariñ xeetu lislaam di ko jariñ am réewam mu moo tax mu ne xatta yuftir asaimu ci woor xatta yuftir ba keroog yi kon su dogee day mel ne bërëbu ba dëgg dëgg moom fañ ko gën a soppi foofa jeex na su dogee ba noppi nag mu tudd yàlla def ci kër yi nga xam ne moo rab ñaareel ba nee na wal imaam al aadil ilimaan yoo xam ne dafa maandu kooku ilimaan mën na ko tudd ilimaani jàkka mën naa tudd njiit njiit lu mu mën a doon nag njiitul ba njiitul mbooloo ma njiitul mouvement ba njiitul gouvernement ba njiitul réew ma ñooñu ñëpp al imaam al aadil day dugg ci ñoom feccam jiite lu toll noonu ba noppi boole ko ak maandu nee na ak ñaanam yàlla du ko delloo ñetteel ba te moo tax ñu indi xadis bii nee na wa daawatul mazlum ki nga xam ne tooñ dafa dal ci kawam jóge ci keneen koo xam ne moo ko tey ngir dooleem rek ak alalam ak darajaam moo tax mu tooñ ko kooku tàllal ay loxoom ñaan yàlla ci ko tooñ borom bi nee na kooku ak ñaanam gis ko delloo moo ne yarfauha allahu fawqa alxamaam wa yaftaxu laha abwaab alsama ak ñaanam bu génnee rek suñu borom tabaraka wa taala ubbil na ko bunti asamaan yépp su ko defee suñu borom tabaraka wa taala ne waa izzati waat naa ci sama kattan ak sama tiraanga moom borom bi tabaraka wa taala mooy wax loolu ne ko la ansurannaka walaw baada xiin danaa la dimbali danaa la jàppale doonte sax du léegi léegi nii waaye danaa la jàppale ngir sa ñaan googu kon ñaan ka danañ ko nangu ba noppi te li ngay wax du daal di am ci saasi waaye nga xam ne rek nga am yàqin ci yow ni kii tooñ na la ñaan yàlla nga ko ñaan yàlla nga day ñëw moo tax léegi nga gis tooñkat boo xam ne day wéy rek nit ñi ñaan ñu naan kii de moom dafa mel ni ñaan yi ñu ñaan waaye da dem ba ci mujj rek nga gis ne ndekete ñaan yëpp ñëw na ñaan yëpp ñëw na bu fekkee alal la woon lépp day xëy yàqu bu fekkee doole la woon day xëy yàqu bu dee daraja la woon ak teraanga day xëy torox ci kanam nit ñi kon yi nga xam ne dañu leen a tooñ ci li gën a mat a wattandiku ci la bokk benn pexe li ko teg amul ci benn pexe fu mën a demit amul njëriñ kooku lam def mooy tàllal ay loxoom ñaan yàlla la te loolu ba liyaasu billahi su ko defee mënu ko ñàkk faaw nga gis ko mbokk jullit yi bokk na ci njëriñi maandute moo di mooy indi sécurité ci réew ak dal ak jàmm moo koy indi ci réew xoolu doom aadama yi moo ciy def ak dal seeni xel itam dal ndax dañu yëg ne ñoom am nañ kóolute ci seeni bakkan ci seeni alal seeni kër seeni njaboot yooyu yëpp am nañ ci dal su kenn ku ne amee dal boobu yëpp ci sa xol loolu mooy tax réew mi yëpp ci jekk ci jekki dal ànd ak dal ànd ak jàmm moo tax fu nit nekk fu nekk da war di xëy di liggéey ci loo xam ne dafay indi njaxas wala muy indi am réer moo xam ne su amee musiba mooy am kon bokk na ci ay njariñam moo dina tooñkat bi njariñu naandu te tooñkat bi saa ko wóoree ni moom nii bu tooñee doole gi mu yor ak alal ji ak kattan gi mu yor du ko jëriñ dara ci kanam attekat ba su boobaa kooku day càjju bëggul toroxal boppam lu ñàkk alalam bëggul ñàkk dara jaam kon kooku day def nocc ci lay def jub lu wax ci bari bari day jub duuf tooñ kenn waaye bokk na ci lori tooñ yi itam moo di fépp fu mu tufaaxoo mooy nekk ci xoli doomu aadama yi li ñuy wax fawda anarchie mooy tasaaroo ca askan wa dara bi jub wala lu tegu ci yoon day daal di jafe day dem ba istiqraar mu stabilité bi nga xam ne moom lañ doon séntu ci réew day dem ba dootuñu ko gis ndax kat boroom kàttan gi boroom alal gi boroom daraja ji boroom wàccuwaay bi su fekkee dem na ba xam ne kàttanam googu alalam jooju darajaam jooju mooy tax lépp lu ñu tudde maandu te justice kooku du mën a agsi ci kawam kooku mooy tax lu ko neex def lu ko neex lay def ci bakkani nit ñi lu ko neex lay def ci seeni alal lu ko neex lay wax ci seeni der wala mu di ko ca def parce que xam na ne am na lu koy aar loo xam ne mu nga tudd kàttan wala mu nga tudd alal wala mu nga tudd daraja kon kooku ci musiba yi nga xam ne ñàkk maandu da koy indi ci la bokk ki ñëw doole nag te nekk ci société boo xam ne tooñ la ñuy def te buñ ko tooñee amut fu mu jëm amut fu mu ko jàmbate fu mu ko jàmbate borom alal wala borom daraja dana taxaw effacé la mu doon dox su fekkee loolu moo tasaaroo ci biiru askan lu muy jiw mooy ku néew doole koo kii mënta wéy rek di mel noonu bés dana ñëw mu jiima jóg di fajal boppam te xamal ne kenn nit wala ay nit ñu néew ñu jóg di fi fajal seen bopp seen mbir moo gën a jafee réglé doo xam fu ñu nekk doo xam anañu doo xam kañ la jóg lu nekk mën nañu jóg def ko ci xeetu fitna yoo xam ne su boobaa fayantu moo ngi indi kon waay waay boroom kàttan boroom alal boroom man-man boroom loxo bu gudd ci ni koy waxee bu mu jàpp yooyu war naa mën a tax lu ko neex def loolu ya muy def su ca delluwut gannaaw wala ñu delloo ko ca gannaaw bisa ngi ñëw mu indi fitna joo xam ne loolee mu doon def moo ko indi ci kaw ay nit ñu néew doole ñu ñàkk pexe ñu ñàkk alal ñu ñàkk dara ci société ba ñu ko def lañ man lu baree baree bari yàqu loo xam ne gisatu ko mën a defaraat te bu boobaa coow du jëriñee ci dara nag moo tax ngir bu jotee dañ koy wax te fañ ko war a waxee su ko defee ña koy wax su boobaa magum waxoon naa ko la ñuy doon waaye duñ doon magum xamoon naa ko bis ni ko tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Saabaan ñu naan tey li ñuy séentu weer wi kon waxoon nan loola dañ ko bàyyi xel ci ne maandate dañ ko war a delloosi dañ ko war a taxawal waree su te jekki ba musiba am ñu naan lii kon ana imaam ya fuñ nekkoon ana borom xam-xam ya fuñ nekkoon ndax mënuñu war yee nit ñi ne mbir mi fii la jëm kon nañ xam ne mbir ma foofu lañ jëm su tooñ amee na maandu ko tege ci kaw nit ña yar leen delloo si ci yoon ak fu nu mën a jóge ak ci jëmm jum mën a jóge mbokk julli kon loolu mooy maandute ci lislaam loo xam ne dafay teg ci kaw ñëpp bu leen fàtte ni Abu Bakr Siddiq radiallahu taala anhu kero bis ne ko yaay amirul muminin yaa wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf dafa jóg taxaw ne yéen day ca xutba ba njëkk a def da ngeen maa teg ci seen kanam te doonuma ki gën ci yéen da ngeen rafet yokk rek ci man su fekkee jub naa ànd leen man ca loola su fekkee dëng naa jubbanti leen ma na ngeen ma topp li feeg maa ngi topp yàllaa ko yonentam su ma mooyee yàllaa ko yonentam bu leen ma topp kàddu yu gàtt kon loolu maandu te lay wax booba maandu te lay wax wane ne day tàmbalee te ka gën a kawe ca askan wa ba ci ki gën a suufe ci askan wi ci gisiinu doomu aadama yi moo tax sunu borom tabaraka wa taala daf koo fedd li lool inna allaha yamurukum an tuaddu al amaanaati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl inna allaha nicima nicima yacidukum bih inna allaha kaana samian basira sunu borom tabaraka wa taala daf ne yàlla digal na leen na ngeen maandu su ngeen àttee ci diggante nit ñi na ngeen àtte ak maandu te loolu waaraateeg sunu borom tabaraka wa taala bi nga xam ne moo féete kaw mboolem waaraate yi moo leen féete kaw mu daanee le ne inna allaha kaana samian basira sunu borom tabaraka wa taala mi ngi leen di gis mi ngi leen di dégg mi ngi leen di ngeen dugg xam na ko mu ngi leen di dégg dégg yéen woo xam ne la ca seeni xol sax xam na ko kon jaadu la ci jullit bi mu maandu ci boppam maandu ci diggante waa këram ay doomam ay soxnaam maandu ci digganteem ak ñamuy liggéeyal maandu ci digganteem ak société bi loolu su fekkee ne am na kay atte atte ci yoon te dëgg ñëpp yam ci kanamam su boobaa réew dana melokaan woo xam ne mooy ñu baax ne la ñuy ñoo xam ne ñooy ña lañ doon mébét lépp duñ ci gis dara te ñëpp réew muy dox jëm kanam noonu rek lay mën a demee lii muy gis wax dëgg yàlla ci jamono yi muy dund mbir yu doy waar la yoo xam ne laaj na kenn ku nekk delluwaat ci sa bopp delluwaat ci saw askan delluwaat ci ñi lay jéggal nit ñi waarante laayante biir te nit ñi delluwaat gannaaw kenn mën ko nekk ci am réew gis xeeti yàq yu mel noonu di am ci kaw suuf ñi gis même élection yi jublu ay mbir yoo xam ne ñoo xam ne dañoo war a doon ay kilifa war a jiite aw askan ci ak i gox ci bërëb ñoom ci seen bopp ñuy xasante di saagaante di dajaloo di xeex ñu dee yéen waa leen war a jiite ci kanam loolu dalatum xel nit seen seen seen bopp dañ dellu seen borom nañ xam ne lii àdduna dong la dañ ko fi bàyyi dem jërul yàq sa diine jërul yàq sam réew ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala weeru koor yi ñu jublu te war ko séentu tey jii ci ngoon mu def ko weeru jàmm di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu delloo def ci sunu réew mi mu nekk réewum jàmm réewum jub allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walafaafa walgina allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa anta ala kulli shayin qadir allahuma inna nasaluka albirra wattaqaa wa min alamali ma tardaa allahuma inna nasaluka ilman naafia wa qalban xaashia wa lisaanan zaakiraa allahuma abrim li hadihi alummati amra rushdin yucazzu fihi ahlu altaaca wa yudallu fihi ahlu almacsiya wa yu'maru fihi bilmacruuf wa yunhaa fihi an almunkar ya samiica adducaa allahuma aciz alislaama walmuslimin wa adil alshirka walmushrikin وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فضلة الشيخ جزاك الله خيرا يلا يلا يلا يلا في أو جو yàlla na yàlla sàmm yal na yàlla yàggal suñu kanam ba ñu yàgg sax di jariñoo lii nga xamante ni mooy sa xam-xam mbokk yi tedd yi ñoo ko bokk déggandoo dañuy ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu wërsëgal ñu boole ñu ci nga xamante ni dañuy dégg wax seet la nga xamante moom moo ci gën a rafet ñu topp ko yal na ñu ko yàlla baaxee yal na ñu yàlla bëgg la alxuraan ak sunna yal na yàlla xeet ci alxuraan ak sunna yal na ñu téye ci topp yàlla ak yonentam ndax mbokk yi kat nañ bokk yëg ni suñu texe àdduna ak alaaxira mi ngi aju ci topp yàlla ak yonentam wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan aziman loolu la yàlla subhanahu wa taala wax képp ku topp yàlla ak yonentam kooku day texe na texe gu màgg yàlla ñu ko yàlla defal di ñaan borom subhanahu wa taala tamit mu musal ñu si ñaari mbir ndax ba seet tamit li nga xamante moom la fi waxtaane te moom mooy xamante ni nii day maaf bi jëf nit ki bokk na ci ñaari mbir yoo xamante ne nii yàlla da ko nattoo jàmm mu ma leen ko yóbbee moom mooy li nga xamante moom mooy pexe seetaan ci nekk ay bidaa kooku seetaane da koo jekku dëgg bi jekku yàlla nañ ci yàlla musal bokk na tamit ci loo xamante ne nii dañ ñaan yàlla musal te mu musal mu musal ñu ci tam mënu koo waral moom mooy bànneexu bakkan loolu yàlla da koo natte doomu aadama comme ni ñu ko waxee yàlla ñu yàlla musal ci suñu ayu bakkan ginnaaw loolu mbokk yi bala ñoo jeexal ñu ngi leen fàttali rek ba tey ci ñi ngeen di mën a déglu rajo bi mën ngeen ñu déglu ci website bi www.xamsadina.com képp koo xamante ne da nga am ay laaj yoo xamante ni nii da nga koo bëgg la ca leeral boo demee ci parti fatawa di ngeen ci mën a déglu même xale yi sax am na ci website foo xamante ni ñoom buñ fa demee ci wàllu loo xamante ni day niroog ko dinañ ci mën a dugg xamaa la li ci seen diina kon xale yi tamit bàyyi na leen ci xel maanaam gi am na tamit beneen dars boo xamante ni dinañ ko ci amal te moom mooy charte sunna boo xamante ni toujours tamit ñu ngi koy amale ci côté ci ci heure boobu ci ci jeudi ci ñu ngi leen koy recommandé wala ci demee di ngeen ci mën a jàng jeudi na ne kon loolu tamit ñu ngi leen koy fàttali maanaam yooyu yëpp ak mbir la yoo xam ne ñu ci jublu rek mooy loo xamante ni boo leen ci demee di ngeen gën a mën a dégg seen diine kon foofu la ñuy yem di leen jox dig daje ba bi ah, di ñëw di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu ñu ak dégg salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.